merci beaucoup jërëjëf merci monsieur le président Je vous lay chers collègues je vous remercie nuyu yéen kenn ku ne sa tour. ak sa euh, ministre du travail monsieur Sambassi, Sy vous remercie. lay nuyu également le même ministre des finances du Sénégal le Sénégal le même ministre des finances de l'Afrique et du monde entier Je vous nuyu également directeur yi fi ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ci liggéey bi ñu koy accompagner di ko jàppale parce que chaque jour gis nañ taxawaay bi ñoom ñoo fi njëkk ñoo fi mujj di nuyu également sama sama xarit monsieur le ministre Mansour Faye yaakaar naa ne yàgg nañ euh, li ma war a wax ci moom bari na mais comme temps bi bariwul en tout cas ñu ngi lay encourager di la féliciter nekk nga nit koo xam ne sa ginnaaw gi yaatu na boo doon tontu doo agsi fi nga agsi continuer nga nekk ci loolu loolu waaye wax nga bàyyi koog yàlla te na ci li nga nekk am confiance ki nga xam ne moom ngay moom ngay liggéeyal waaye kuy wax ni amoo mérite ci affaire dafa fekkeewul jour biñ may dax yow yaa ma yónnee lu ma jëndee lu ma jëndee lu ma jëndee ay dàll sama dàll yi dagg maa doon yàq benn mitin di nuyu également say say say say directeur yëpp le directeur Fera Abdou ne ñoom ñëpp ñoo ngi leen nuyu suñu xarit ñoom wal joojo ñoom ñëpp ñoo ngi leen nuyu parce que ñëpp samay xarit lañ Euh, euh, su ma waxee damay damay damay kii ak digg directeur Dakar dem dikk ci ñun la jóge euh, monsieur le ministre tali Sadio Touba Taïf bi boobu vraiment président Macky Sall recevoir nañu ba wax ci boobu suñ sañoon ñëpp xam nañ liy ñoree Sadio buñ sañoon boobu ñu jàppale ñu ci ndax ñu defar tali Sadio Sadio Taïf bi beneen bi muy Daaru Nahim ñëpp xam nañ ne dëkku sëñ Cheikh Aliou la Daaru Nahim route nationale bi boobu monsieur le boobu bëgg nañ vraiment ñu taxaw ci parce am na importance boo xam ne lii dugg foofu ci gerte di génn jëm ci route nationale bi suñ sañoon boobu ñu defar Kayel dafa am histoire ñëpp xam ne diggante Kayel ak route nationale bi war nañ koo defal bu yàgg parce que journée de l'élevage bu président ñëwee waxoon na léegi léegi ñu defar euh, tali boobu beneen bi mooy euh, Madina ak ci route nationale bi mooy dëkk sëñ Mbàkke Madina foofu chaque jour màggal chaque année màggal gu mag moo fay am mi ngi noonu beneen bi mooy ndindi Touba Bogo Daara Xafoor Madina Touré ba jëm Misira yooyu bu ma sañoon vraiment ñu xool ko beneen monsieur le ministre jam ñaaju yéen a ko ubbi service yu bëri ngeen yóbbu yóbbu fa artisanat yi yóbbu fa ñëpp ministère yi nekk fa mais service service des mines bi fi nekk mais nañ ko délocaliser yóbbu ko jam ñaajo parce que boo xoolee fii embouteillage bi fi nekk dafa métti suñ ko jëloon yóbbu jam ñaajo ku bëgg am visite technique danga dana la jaral nga dem ba jam ñaajo ñu bàyyi fii parce que fii ni muy xatee dafa xaw a métti nañ xool loolu beneen bi tamit ñoo ngi sant baax le président Macky Sall ak ministère gis nañ màggalu Touba tali bi xatoon na train bi daw na corné na aw aw Diourbel aw Bambey teeri Touba kon boog loolu moom dañ leen ciy félicité di leen ndax ñëpp ci lañ dugg pass bi yomb na wàññi na embouteillage bi beneen bi euh, mooy syndicat de transporteurs monsieur monsieur le ministre syndicat des transporteurs foog ñu ubbi ko benn lobby moo fi nekk tëj ko y a des jeunes transporteurs yoo xam ne am nañ ay agrément transport ñoom fi kon boog ñooñu dañ leen war ubbil ñu dugg ndaxte lu ñëw ñoom ñooy toog kum toog di ko kii transporteur yu bëri ñoo naan ay transporteur yoratuñ ñaari oto loolu day yàq boo ne mënoo mënoo wuyoo transporteur te amoon ñaari carte grise loolu mënul nekk kon boog loolu nañ ko ubbi dañuy nappaati di kuppaate nañ ubbi affaire bi ñëpp mën cee dugg ay jeunes ñoo ngi fi yore plus de dix carte grise vingt carte grise ay nit yoo xam ne yoruñ carte grise waru ñoo mën a wax seen seen tur li ci des Dakar dem dikk monsieur le ministre mënoo ñoo jël suñu alal di ko jëndee ay bus lu xew ñu koy taal loolu moom foog ñu seet solution Dakar dem mbikk ay milliards lañ def c'est l'argent di contribuable ñu koy taal euh, di yàq loo xam ne askan wi ñoom ñoo côté di ko jënd beneen bi terre bi bu ma sañoon ngeen jël delloo ko ñu xool nan la def ñu doon wax amul njariñ maa ngi leen di defee ndax terre bi am na njariñ wala amul njariñ di leen sant bu baax di leen gërëm merci